da nga sànni un pavé dans la mare Aminata Touré sax tontu na la ci ci ci wàllu nga ne nga ne vous êtes en discussion avec des de l'opposition l on est et c'est pas exclu que ñoom ñëpp ñu dellu si waat non dama la mais dans cette opposition là on a que des amis on a que des parents ñu nga xam ne a pas on la on discute on se parle à part une certaine façon de, de s'opposer qui, eux, ne veulent pas de la République, ont choisi une autre voie. Non, non, il n'y a pas matière à discuter avec eux. Mais au moins, Sénégalais lañu te suñu projet on jàpp nañ ñu après tey président Macky Sall Amadou Ba présente le meilleur profil pour la sécurité du pays. ah loolu nag on dañuy waxtaan ak ñëpp. loolu moom may mën a ce n'est un secret pour personne et nous continuerons à discuter avec tout le monde. xam actuellement dafa am benn phénomène. ku ñëpp a ngi jóg xam naa 2012 bi lañ bëgg a réédité ne ils sont candidats man de jàpp naa ne ñooñu di jóg bu ñu amul parrainage mën nañu rallier Benno Bokk Yaakaar mais opposition bi ma xam mu nekk l' opposition ay de Yewwi mu nekk xalifa euh, Sall mu nekk Karim Wade mooy ñi opposition bi représentative gëwuma ndax ñooñu noonu dinañu wàcc bàyyi seen làng wutali seen langue benn nga xalaat yaakaar lu ci kanam rawul bët ñi nekk yeewi gëmuma ko ci ñoom gëmuma ko ci Khalifa Sall gëmuma ko ci ci ci ci kanam rawul bët ci Karim Wade li ci kanam rawul bët voilà qui dont le retour est est est est imminent te Karim sax bu ñëwee vous savez carte gi day jaxasoo non mais mun a xam nga man dama man dama nekkul équipe de football bu yore di jouer ci benn équipe di xool équipe bële au moment où maa ngi ci biir terrain di xool équipe bi war a ñëw naka lay jouer loolu du sama mbir man li may toppatoo mooy Amadou baa si tout le monde si toute l'opposition était réunie par extraordinaire si nous n'arrivons même pas à avoir quelqu'un la bas que Amadou baa gagne au premier tour loolu nag lu ko indi amul benn pexe amul beneen pexe lu dul Sénégalais yi adhéré au projet kon nous sommes en train de dérouler et que Amadou Ba moo war a nekk un continuateur et